wala mu delu ci yonente bi wala mu delu ci alxuraan bo xolé turi dëkk yi mi sanki yëpp bo xolé day delu ci yàlla turi xasida yi yëpp day delu ci ci ci ci ci ci ci ci si jëmmi sunu borom boo xoolee leeri boppam yi muy seeni tur yëpp boo xoolee day delluwaat si jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wala mu delu ci jëmmi sunu borom subhanahu wa taala maanaam darey sëñ Tuubaa génnul yàlla génnul alxuraan génnul rasulullah sallallahu alayhi wasallam manam dal kon buñu déggee sëriñ bi dafa doon nit ko xamné Euh, dañ ko fi indi rek loo xam ne liggéeyal suñu borom la. mais mm-hmm. indi fi woon comme tey boo déggee si yenn yenn nit ñi comme tey ñii am ñoo xam ne dañuy ñëw rek ngir naan di ñoddeeg sëriñ naan tey man ak sëriñ laa di woote. Mm-hmm. naan ak sëriñ laa defal leen lii def leen lii mais sëriñ bi daal boo xoolee tey ay mbiram. Mm-hmm. lépp da koo jëmale woon si suñu borom. waaye du si dara jafe. xam nga boo xoolee sëriñ bi bëggut a ñëw ñëw. nekkul ni moom moo programme ñëw ñëw <laughs> comprendre nga. moom mhm. nekkul ni moo bëgg a ñëw si àddina bi ñëw rek di wootee nangam ak nangam déedéet dama woon noonu de mhm. sëriñ bi dameen réserve bu sunu borom la du sunu demeen ñun dafa am ko tax ñu jot si moom muy rasulillahi bu dul woon rasulillahi duñ xam sa jëmmi sëñ Tuubaa ji waaw ndax yonent bi sansam sunu borom da bi mu koy yónnee wa maa arsalnaaka ila rahmatan lil aalamiina wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi basiran wa naziran laqad manna allaahu alal mu'miniina iz ba'asa fiihi rasulan yonent bi yitteem yëpp du leen mooy xeetam yëpp mucc dund na trente dund na soixante trois ans bi nga xam xamee nag sunu borom subhaana dem na ba yenn sansa war fee bàyyi ko sunu borom da ko won mujjig jamono sëñ Tuubaa wax na sa jës du ni mhm. yaraa waraa a wa amaam mhm. waxaynuhu kaanatana waxal buhu lam yeneen mi waaw ndax Moustapha sëñ Tuubaa ne bu xoolee kanamam mhm. la ka dagga suñu baay aadama ba jamono jooj lépp la Moustapha di gis bu dee yaraa waraa aw amam mhm. bu dee waraa bu si jublee ginnaaw mooy lekka ka bis bis bisub koroog bu xoolee ba mhm. kër àdduna tukki ku fu woon lépp yàlla wan na ko Moustapha iblis ak saay-saayam ak mbonam ak ne ko yàlla kattanale mhm. nga xam ni mucc si moom yombul yàllaa le si muccal yeneen bi wax sunu borom ne ko maa ngi dem naa ngi xis lu gudd la ma koy tënk rek bi mu demee ndax ndax boo demee si an naf yu xablal isbaat nga xam ni juróom ñaari wàlli yu nekk gànnaar ñoo si taalif bala ngaa taalif si téere da nga nekk xaalim nekk xaabit nekk xaafis nekk waarix nga xam ne juróom-ñetti dara juróom-ñetti sart lañ si teg nekk koo xam ne mosoo mooy yàlla seeni saa sag dund door a mën bindu si téere boobu korog bi yeneen sansam riñaane si la gisanteeg jëmmi sëriñ ci waa ji korog azal subhaanallazi asra bi xabdihi laylan minal masjidil xaraami korog loolee bi xewee bi Seydina Jibril ne ko wa maa minnaa illaa illaa lahu maqaamun mahmuum bi agsee moom ar arburaax Seydina a Seydina Jibril ne ko ne fii la mbindeef lu mu rëy rëy dara ja lu mu rëy rëy maqaamam jëfam fii la yem fii kenn mënatu koo weesu jëm fenn ne ko nag loo jàll nag fi mu toll nii sunu borom la sunu borom ne ko man nag fii laa yem su leen benn dun boo xam ne bara xaxe woon lafratul axdar lu ne wax nañ ko ni moom la doon waaye sunu borom si la wàccee benn dun leer boo xam ne si la Moustapha taxaw daal di jàll bi mu ñëwee fekk na fa jënd jëmm joo xam ne nee na leere suñu borom yeeg jëlaat ji da koo mëdd ba kenn xàmmewul jëmm ji nee na jëmm ji taaroo na taaroo na noo xam ne moom da ko yéem moom jëmmi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam li ni ku dem si àlis na fi mhm. jëmm ji mooy kan mu ngi kii sama kiimaanu bopp la dama ko waajal ngi sama jëmm ji si la yeneen saa saa sàkku si moom ni ko damaa bëgg mu dimbalil ma sama xeet looloo indi koroog baatub raama rasulillahi koroog la juddu moo tax boo xoolee raama feexlu maa dii la de verbe présent de verbe futur raama mooy sàkku na bokkul dina sàkku bokkul dinaa sàkku ji waaye dañuy sàkku na sàkku na mooy maa ngi wut ci am ndimbal sàkku ah, sàkku daal mooy comme ça ma ñëw ma ñëw ni maa ngi sàkku si yow nga dimbalee ma juróomi junni mooy maa ngi wut ci am ndimbal kom xaaral ko comme ñenn ñi nga xam ne ay français la nit ñi dégg ci olof bëriwul. waaw sàkk mooy ak ñaan daal mooy ñëw. waaw ñëw di màjjal dara di la màjjal ak. waaw na la maa ngi lay. maa ngi bëgg nga defal ma nangam dimbali ma nangam waaw. kon loolu lu ñu sakku lu mhm. avant. Mhm. Mhm. nga xam kon ma ñëw la ma ñëw seen dama bëgg nga dimbalee ma dara rek nga yëkkat sa téléphone bi jox mako ko. mooy baatu sàkk si olof. mooy baatu gut dara sakku dara. bi mu ñëwee wax leen sunu borom subhanahu wa taala ci jëm jojé mu ngi son nga xam suñu borom subhanahu wa taala waa wa baxna utale kap dat utale ka heure bi mu sàcc heure bi mu war a waxtu mo wara wàcc dëkk bu mo wara wàcc wajjal ko lépp tek nga xamne suñu borom amul temps ak espace amul amul amul amul pas amul temps amul temps amul espace li wax amul zarf zaman amul zarf maqaan ndax lépp da daa ndo fi mom inna kulla sayin khalaqnahu bi xadarin wa ma amruna illa wahidatun kallam shibil basar la wax léegi bi yeneen sansam sàkkool suñu borom subhanallah suñu borom nangul ko càkku téeméer lépp motax man ni damay faral wax ni rasul ñaar ñi amuñu seen ak fay ci kaw suuf muy jëmmi rasul lay ak jëmmi rafal rasulillahi moo tax ñu jot ci sëñ Tuubaa waaye Seera Faal it moo tax ñu jëriñu sëñ Tuubaa moo tax mu ne raama sàkku na rasulillahi boo xoolee rasuli gi rek mooy mooy fanxir ji waaye las jo jilaa ji rek say idaafa rasulillahi da koo def fanxir mu daafak mu daaf ilayhi rasuli gi rek mooy fanxir ji jërëjëf euh, Serigne euh, bi maa ngi lay bu baax a baax a baax xam naa ne waxtaan bi moom buñ ko neree topp duñ fi jógee te daanaka mbirum sëñ yi moom yaakaar naa ne euh, lépp loo si waxtaanee fii ba suba duñ fi jógee ah, xanaa nag dañuy dañuy dañuy dañuy daal di daw rek dem seeti yeneen ñaari question yi nga xam ne ne li ñu dese sax bariwul si waxtu hmm. daanaka xam naa ne dañuy tënku rek yow bu ko defee Euh, li ñuy dese si waxtu bëriwul mhm. dañ lay soññuwaat rek boo ko defee mhm. yow ak yenn mbokku taalibe yi xam naa ne moom da ngay dellu ba Brésil rek bu ko defee nga <laughs> xool noo leen soññee rek wala ñu dem tamit Touba benn yoon la rek euh, dañuy daal jógee Dakar rek dem Touba wala nga dem Brésil eh. ñu xool nan ngay soññiwaatee sa mbokku taalibe yi mhm. si sëriñ bi loolu de xanaa fi mu toll nii loolu sëñ taxaa def na ko sëñ taxaa daa wax ni bëgg nañ sëriñ bi waaye dund nu ko na ko war a dundee waaye xamuñu nag na ko war a na ko war a xamee mbir bala nga koo mën a xam dëgg da nga koy dund jël sa lëpp jeexal ka si moom taq door koo mën a xam moo tax sëñ bay la sëñ bay jaxate waxoon daan ni sëriñ bee di saakoor ak sama julli faawu man mhm. bu nuy woor a kay jullee ka wér di ma ngëpp ka man te def naa ko muy saa xam ak sama diine yit samay sol jàllul bamba yem naa fi moo fi gën sama bari man-man mooy yitteem mhm. dootul jëm si dudul mbiram ndax lu lu jëm si moom ak mooy la tang mooy faru dagan daan ne lépp lu waaye mën a gëm gëm bàmba moo gën a wér mën ko gëmul bàmba mii gëm kenn yéem yéem naa ko lépp lu waaye mën a xam ak fànn gu mu mën a doon na gëm xamul bàmba mii xam kenn sib naa ko daan ne rawati naa waa ji koy di nga di wax si mbiram lenn lu dul noonu kookoy man yërëm naa ko jamono jamono juntool nii tembe moo nu atte suñu digganteeg sëriñ bi jamono moo nu xamal ni ñun mhm. assurance bi gën a wér mhm. bi gën a wér wéeru waay bi gën a wér mooy jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëñ bi boo xoolee jamono fépp a toj ñëpp a ngi daw di làqu kenn amul foo jëm ñun ñu am jëmm joo xam ni moom moom moom la wax moom la wax sama ñu wax tamit baara baaraka daan ni sunu borom subxanahu wa taala moo ma digal ni naa wax ni yëkkati sama loxo man sëriñ bi nii maay rawwaay bi maay aaruwaay bi maay làqukaay bi maay muccukaay bi kuy wut texeeg àddina ak àllaaxira ñëwal wéer sama digg ginnaaw ma sëñ Juba bi an usarrixa malaadun wa ximal wa mafzaxu fa man araada al xayra fii tilka yi daari ni fal sëriñ bi waxul ni man maay mucc kaayam dañu yàlla suñu borom moo ne moom ma wax leen ni leen yéen biréel ko sa kaw nag te bañ koo wax si suuf ni ma wax leen ni leen maay muccukaay bi maay aaruwaay maay rawwaay bi maay laquwaay bi képp ku bëgg mucc àddina ak na ñëw wiiri sama digg ginnaaw man Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loolu jamono ko àtte coronavirus a ngi nii lëmbe àddina bi Brésil ga ma nekk kenn génnul dem fenn France ak foo dem kenn génnul dem fenn màggal ak daaw gaa ngi ni dañ koo màggal ta bu dul màggal ak boo xoolee aj kenn demul fenn humra kenn dëmul fenn tabaski kenn defu ko korte kenn defu ko gàmmu kenn defu ko sëñ Muntaxa woote bisu Sëriñ Touba gi taw zéro cas Ah, kenn feebarul. maa ngi dégg ñu naan corona bi de murit la sax na <laughs> loolu la di faral loolu la fi mu toll xam nga mbir loolu dafa palpable fi ne jëm mbirum Sëñ Tuubaa dafa palpable loolu mën a teg baaraam la nekkul loo xam ne kii nan la nangam naan lu a teg baaraam maam lu leer nañ ñu lu mën a teg baaraam la mu waxoon si ma waxee ne xat fakka kab laa xat basta fat laa fa durru wala wa nafa jaahi kon nan xam ni nan jàppaat sëriñ bi te dundaat sëriñ bi te jëlaat suñu yitte yëpp jox ko sëriñ Tuubaa te bañ a attewu si jamono waaye di atte si mbindum Serigne Touba tey déglu ki nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba. Eh, jërëjëf Serigne Malick Diop xam naa ne dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggoog mbokk internautes yi. bu ko mhm. defee nga bàyyi baat bu mujj. xam naa ne mhm. li ñu mayoon si waxtu daal daanaka jeex na te waxtaan wi am na solo lool <laughs> su ma sañoon nag du jeex ndax euh, li ngay fir li ngay toj nii yi si Serigne bi. Mhm. dafa dem ba man daf ma mujjee sax ëpp doole léegi dama lay bàyyi rek nga tàggoog mbokk internautes yi. waaw bu ko defee naa ne dinañ jàppal yeneen euh, jamono bu ko defee ñu ñëw ñu gën a yaatu yaatalal mbir mi nga xam ne boobu moom daf ñuy may temps bu bëree bëri mm. incha waaw ñu santaat bu baax a baax santaat si jëmm ji mm-hmm. sa dal ak ak kàddu yi am solo ñu ngi lay sant bu baax di ñaan jotaay bi suñu ci wàllu donte na moom li nga bëgg a defalee doo ko mën a defalee maa ngi ziar bu baax sëñ Habibou di ziar sëñ Omar bu baax di ziar soxnaam soxna Awa nga xam la nekk defe kii bi nii di nit ku baax di sama jigéen di xaritu sëñ sëñ Habibu nga xam taxawaay bi am suñu jëm ngir sëñ Tuubaa ñu ngi koy jëg bu baax depuis ma ñëwee fii tam Dakar maa ngi mbokk taal bi ku nekk fu ne may oowee mm-hmm. ngir jëmmi sëñ Tuubaa ji rek tax ñu ngi ziare waa Brésil gépp di ziare waa Chili di ziare waa Argentine di ziare sama wóllare yi xam ne ñoo nekk France képp koo xam daal jàpp na suñu jëm ñu gis sëñ ñu ngi koy ziare ko jox wàccu yaayam dañaan jotaay bi sëñ Tuubaa nu ko te na taw feex ak àddina ak àllaaxira suñu dund suñu faar suñu dëkk yëpp yàlla na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Malick Diop euh, Touba Brésil ñu ngi lay waat bu baax a baax a baax di am mbégte ak contentement si dalal bi ñu la dalal ak oft gi nga am ba nangul ñu jotaay bi nii di la ñaanal jàmm ak wér ak wérle te gën la fee bàyyi tamit mbirum Serigne Touba moom képp ku si liggéey tamit tànki kanam dong nga si am waaye door si am leneen lu si euh, loo xam ne daf lay gàllankoor téela kon bu ko defee dañ leen ñu bàyyiwaat rek ba beneen yoon incha